mbokki Sénégal ndaanaan bi yegg si na kookal la ñu ne la numéro un kookal la Fallou Ndiaye promoteur bu mag bi ki nga xamante ne mbokk yi bu yegsee amateur kontaan xam ngeen lu mu defati dafa jël ñaari xale yi nga xamante ne mbokk yi ñoo toll ci classe d'examen kookal la ñu ne Boy Diop doon soow mi mbokk yi moom la jël boole kookan mbawor mbawor bi kookal la ñu ne jeex jàmm na lu rëy képp kuy a xarañ ci làmb kooku la ñu sargalee bis jëli bekkaay boole ko ak Boy Sil loolu mooy combat spécial ba boobu it ngi ko duppee ki nga xamante mooy le ministre de la jeunesse de l' emploi et de l' mbokk yi xam ngeen lu neex ci bis bi laay Bruce Lee dañ ko sargalee ki nga xamante nii bu làmb yegsee fii da am wàllu bu rëy bokkal la ne Sa Touba xaritu làmb ji Sa Touba mi nga xamante ni képp kuy mbër sooy bëri di tudd Sa Touba woo ko mu jàppaleel ci bis waaye mbokk yi fàllu yamul foofu moo tax Fallou teg mbokk yi Nagastère ki nga xamante ne mooy Bruce Lee Siteu bu ante dina fa laale ak Zos mbokk yi yëlle moom ak Petit Lafa ñoo fay daje Jinne bu ndaw moom ak Juldal Doro mbokk yi naturel dina fa laale ak Nes 2 Modou Yacine teel a ñàkk baay dina fa laale ak ki nga xamante ne mooy Thiatou Linguère Bombardier 2 dina fa laale ak doomu mi na mbokk yi rek ba mooy tijji bis ba mook internet tey bisu le 20 Fallou Ndiaye daal saa bu yegsee képp kuy amateur sa xol sedd bisu le 20 kuy amateur boo yéexee di nga tardé ndax xoolal en direct lay doon Kewel TV ak yeneen plateforme yi nga xamante ni ñoom la Fall di liggéeyal sama gaañi le 20 Fallu moo koy yëngal asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yëpp di nuyu suma sëriñ notre responsable moral bi daaytu Moustarchidine Moustarchidaty di nuyu kilifa diine yëpp tey nag ñu ñëw fii si Cambérène ñoo seen champion nee na chaque fois révélation yi si lañuy bokk ñu fes ki nga xamante ni moom mooy Niang Ballo mu nekk espoir boo xamante ni parcelle ñu ngi koy bàyyi xel ñu fas yéene waxtaan ak moom ci carrière ak làmbam instant bi fu mu toll dañ koy bàyyi bu nuyoo ñu dugg si waxtaan bi championnat oui maa ngi lay fay mooy ginnaaw ban sant yàlla di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di ñaanal sama papa yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ak benn mbooloo mu jullit ñu ko fa fekk ak xam nga ñu fa fekk mooy du nuyu kilifa diine yëpp xam nga Touba ak Ndiassane bépp kilifa diine nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant di la ñaanal jàmm di ñaanal imaam Maxtaar xam sunu xalifa bi yàlla yàggal ko fi bu baax a baax a baax mooy di nuyu waa Cambérène yëpp waaw. te su ma la waxee kan mooy Niang Ballo lan nga may wax ci côté carrière am enfance am. waaw Niang Ballo. waaw comme noonu rek comme nuy gars yi di dundee rek comme benn mbër si koñam rek seq ak ñëpp jàmm waaw xam nga rek nekk benn Baay Faal benn góor yàlla kooku mooy ñangu waaw. gàtt rek <laughs> ay affaire moom deful parcours quoi moo tax. waaw affaire moo xaw a gàtt nii rek moo tax yaa ma gën a xam. billaahi. ñoom tey dañuy tuddee turu ñang Balla bi waa ñang nag xam nga dafa xaw a jiitu làmb ko waa yee nekkul làmb moo tax ñu tudd ñang baalo ko waa avant làmb la xam nga mooy comme nu koy gars du dundee rek si koñ nii xam nga affaire jeunesse nii nekk si waa di xaw a nekk si yenn affaire yi rek mooy loolu daal yaa ma gën a xam <laughs> waaw da nga doon ruube nag de gars neen da mën a ruube mbëru mën a ruube non du ma ruube sax waaw man moom ku ma jëlul sa avance du ma la ruube quoi ah. waaw ku ma jëlul sa avance nii moom nañuy nekk si jàmm nice waaw mais suñ xasee ba weccit dugg si yow weccit ñëw si man non jàmm amatul foofu waaw. waaw. Mhm. ñu ngi baal lu ko dugal ci làmb dafa am papa buy bëree wala maam bu bëree. wala dafa judd fekk ngemb ci digg biir kër ci kër gi ci buntu kër gi. buntu bi non aw ma nag papa buy bëre aw ma buy bëre mais xam nga sama grand frère da doon bëre Pape Camberène. waaw moom bokk si moom lu nu dugal si làmb waa waaw. waaw làmb comme ni muy dikkee si gaa yi rek. nan am na ñoo xamante ni dañuy ñëw fekk papa papa bëre wala maam wala mag mais yow làmb nu mu dikkee si. waaw comme noonu rek xam nga rek affaire yi moom man dawal ko du sereet laa woon man fas rek laa xam waaw. waaw xam nga doon nekk si koñ bi tamit du dund affaire góor. Ah, waaw xam nga non pas ruubee sax. <laughs> non pas ruube sax xam nga nekk si koñ bi nii dund affaire góor yàlla xam nga mooy loolu noonu. waaw di gis suñu grand frère di bëre boo bàyyiwuñ si woon sax suñu xel ndax ñun ay supporters lañ woon. waaw ñun ay supporters lañ woon doon doon supporter grand frère yu bëri fii. doon doon supporter Modou Lo doon doon supporter xam nga Papa Sow. doon doon supporter dem si yàlla si yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana muy grand Moussa Dioum ak suñu benn grand frère Sam. yàlla na ko yàlla yërëm moom tamit ñoom ñun ay supporters lañ woon. xam nga tamit supporter bu xam lépp nekk supporter nekk bañkat su commencé takk ngeen ma tamit day xam lépp nu mu demee ko waa ah, waaw waaw day xam lépp moo tax xam rek yaa ma gën a xam waaw mbapat nga waaw ñun mbapat nan nag waaw ñun nag xam rek mbapat nan nag ay mbapat yu tàng ay mbapatu nante nag laa lay tegal nii waaw <laughs> waaw ay mbapat yu garaaw kay xam ñu may àndal rek ay nante leen man du ma ànd ak ay ngaaka ah. waaw man nag looloo tax nag ma teel a bëri arène yee ndax man samay mbabat. toj nga uh, géejawaay. géejawaay ndeysaan <laughs> demuñu fa nag bëre ji mais xam nga nit jugee na foofu ñëw bëri seek man fii quoi intakat xam nga barki Seydina Muhammad. bar champion. fàtte naa turam sax. waaw mi ngi lëmb waaw xam nga mi ngi lëmb làmb ji nag mais. xam waaw mais bëgguñu ko wax quoi xam nga rek ndeysaan waaw. mais daa jëlaat ay bagaasam lépp dem ñibbiwaat xam nga mbapat ñëw ba nit ñang baalo ak diw. préparé leen. Eh, dégg naa doon ruube gars boo ñëwee xam ne kii moo la kii rek nga ko lu tàng jër mu dem. non non pas noonu rek mafia bi moo doon àndal moo dëgër. xam nga sax xam nga moo doon àndal moo dëgër ba gars yi doon wax sax sa waay dootul bëree mbapat. yaa waaw su ma ñëwee moom da ko koy jaxal ba mu jax indi sareet yeeg yëpp gars yi ñëw. waaw toj na mbapat kon waaw bëri naa mbapat nag boo xam te ne mi ngi lëmm làmb soit mu raw la wala nga raw ko boo xam te ne bëri ngeen na combat métti boo xamante ni moom euh, dafa bokk ci say kii non leer yàlla def na nag xam nga man ñu daan mbapat yëpp xam nga mooy loolu amuñu sens nag si arène bi quoi xam nga xam nga yi sens la quoi ñoom amuñu sens si arène bi quoi moo tax xam rek waaw am na a tudd waaw non pas loolu sax xam nga ñun moom mooy loolu ay baay faal lan ah. waaw comme moo tax gars lu dund ak ñoom mbapat daa xaw a métti quoi xam nga rek li nga doon demee jamono yi mbapat ak li ngay demee arène du benn ko yeah lutte avec nga dugg ci ban. yeah maa ngi si dugg si lii bi corona bi. <laughs> yow ba billaahi ma def instant yi maa ngi ci cinq combats. ñaata victoire. oui quatre victoire benn benn défaite quoi. kan moo Aydara Aydara bu yoof moom ma daan waaw. waaw. sa quatre euh, victoire ay sama kat man ak man ak kilo mburu sama premier combat sëñ moo ko moo ko tëgg waaw sama deuxième combat lan ma daanee nag yee sama troisième combat ma ñëw daan quatrième bi noonu cinquième bi noonu yee cinquième bi booy booy sébi laa daan quoi waaw waaw booy sébi booy booy ñaa bi waaw moom laa daan waaw di ko ñaanal jàmm moom Baye Fall la nag way mm-hmm. Euh, ñang lan mooy problème am ci côté làmb quoi ndax gis nañ ni par rapport ak booy mhm. am nga mbooloo gars yi bëgg nañ la macha allah mais ci côté làmb ji xawul am tuuti retard par rapport ak booy fi ñu toll ak ñang fi ñu toll. non dëgg la non du retard sax ndax xam nga xam nga ba mu bëree man ci ay si ay victoire laa toog nii xam nga ci ay victoire yu baax xam nga di ñaan yàlla mu yokk quoi mais xam nga làmb ji man dama ko doon dégg nag dama doon dégg nii làmb ji xam nga. daa am moytonte quoi mais gaw ma ko woon. da ko doon dégg waaw. dama ko doon dégg nii rek mais gaw ma ko woon mais ba ma demee nag ba commencé di tax ngeen mën ak man si laa gëm loolu ko mbër yu bari ay tapet lan. barki Seydina Mohamed. mbër yu bëri yu bëri ay tapet lan. maa la ko xam ñun ñu bëri. waaw yow. waaw xam nga rek xam nga man taxaw di cëppeel nii. mais man du ma cëppeel waa mais boo yu bëri ay bokkat. comme ñan ba bëri na xam man ba mu bëree ba tey xam nga. gars yi ñu ngi wax mais. man sama làmb metteewul si man waa desul si man. ci ñan si booy adversaire yi yenn champion yi. bu laal ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon wax sama combat. tarkindaala. daala moom laa soxla ndax. non waaw man aw ma lu may ragal. non man aw ma lu may ragal. Hmm. waa instant yii ñu may wax nag ay lii mais man bu man bu laal laa soxla. booy bu ñaaw boobu moom tàppet la. booy kii nu mu tuddati sax te keroog stade muy nekk foofu doon lii te moo ah Daouda Sandi ñu daje stade mu naan maay ah. la <laughs> ah, ñu seeti ko mu daw quoi. Daouda Sandi waaw ñu daje stade mu naan ma maala man maala ëpp doole eh, ah gaay gaay ma may la xaalis. yow kook daf maa mu a may xaalis. waaw la man xaalis dama mën a may may xaalis kañ mooy mu jël sama avance. mais ma la sa maa ji gars yi seeti ko mu naan ay maa ko ëpp dooleeg ah te nee na moom moo ma jiitu si làmb moom lu mu def man defuma ko loolu la wax keroog man dajee esaat ñu ñibbi si sama ménagère ni ma maa lay gis ak daaw sandis ndax bëgg nga ko ma ne ko waaw ñu woo ko mooy loolu mais essange nii bu laal laa soxla dinaa Mouhamed non diis guy guy a ngi nii guy ak a diis tamatul këriñ guy guy yooyu noonu nekk si àll yi <laughs> baabu baa bi dafa diis mais matul këriñ bu laal du dara dama koy waaw du dara tam moom tamit gars yi seeti noon ko mais nee na moom pareegul pour ma essence quoi moom loolu la wax waaw yóbbante boobu nag yegg si na si ñun quoi nee na moom pareegul pour ma essence. bu man essence nii sama combat bi ba mu jàllee ba tey bëriwuma ren bëri naa mars ah le lan le 12 mars diggante ñaabu ndaw ak kii bi. ak Tafa Gueye 2. yàggul yàggul boobu laa mujjee bëre. Mm. maag booy sebi mais boobu ba léegi maa ngi toog dala reeragul rek. di xaar gaay di xaar gaay tam. waaw te màggal gaa ngi ñëw. booy safi yaa ngi fi de. laa soxla. waaw ñooñu laa bëgg. waaw. waaw. Ah, mais ñooñu sax dee nañ bëriwu nag ma comme ñan noonu. Ah, comme ñan ah, ah man de bàyyiwu ma fi benn booy moom. benn booy mbër man moom xam nga su weesoo waa parcel xam su weesoo waa parcelle ak sama doom day caatu piol bi waaw su weesoo ñooñu noonu. sama gaañ la du ma bëreeg moom. sama waay la. wallaahi du ma moom ne ay ñu fay ko un milliard fay ma un milliard du ma bëre. waaw. mais relation moom avant làmb la. waaw avant làmb la maag caatu quoi. sama rax la sama gaañ la. waaw xam nga làmb tamit xam nga su boolewul rek warul yàq quoi. to man damay jàpp damay damay jàppee nit ndax démb dama ko jàppee ndax tay quoi. waaw ndax bu dul dara rek am na fu ñu jot jaar nii man moom xam nga dund lu nice boobu ba tey dafa rafet kon mooy loolu du ma bëre moom. oui. Euh, mais parfois mbër da ngay dégg euh, gaay naan nu tudd. ñang baalo ay combat xam nga. day ruube ñang baalo su amee sax combat. am na ñu bari dañ ñaan combat yooyu xam nga rek. day xaw a kii quoi jaxasoo quoi. jaxasoo da xaw a jaxasoo. si ñang baala bu amee combat gars yi relation ak policier yi pour mu ñëw xam nga day xam lan lan problème bi lan la lan la. non xam nga rek loolu dëgg ko quoi ñun moom ñooñu dañ ñu sonal quoi. waaw parfois ko li gërëm di dañoo xaw a indice. waaw mais doomu aadama xam nga dafa ko waa doo ko gis rek nu mu mel rek nga jëm ko nga jëm ko nga jëm ko jugé noonu quoi xam nga man. sama làmb ji paase rek booy bu may toogal ci ak booy bu may soose gaalaaj nan leen summi police yi nan leen summi ni leen lii ngeen sol duñ fi dugg te xam nga loolu du yoon te xam nga nu xeex ak ñoom mënuñu mënuñu xuloo ak ñoom xam nga moo tax dafa war a rafet suñu diggante ak ñoom ndax ñoom nan leen indi si stade bi pour ñu sécurité stade bi mais waxuñu leen xam nga pour ñuy defatal ñuy mbër yi di àndal wala ñuy jéem a tuutal mbër beeg affaire yooyu ndax lépp war a rafet ndax ñun ak ñoom benn la. on est ko waaw xam nga suñ sumee tenue yi ñun ñooy àndaat xam kon dafa war a rafet daal. billaahi mais du dara nag doy du dara amaana ñoom ñoo ñuy dund loolu rek mais ñun du leen ko dundu quoi waaw. mais à boo yooyu nga tudd am na tamit yeneen ñoom xam te ne peut-être say génération lañ ñoo xam te ne tey ñu ngi lëmb làmb est que tey ñam baal la fait que coow bi mu am jarul mu jël booy bu booy booy bu am coow. bëre wane boppam ndax gis nañu léegi nag le temps passe te làmb ji ku daan dem ku daanu xaar. waaw loolu la looloo tax nag instant nii ñu toog ba tey quoi looloo tax instant nii ñu toog ba tey ndax xam nga bëgg nañ bu ñuy wax ñang dafa am coow bëgg nañ tamit xam nga muy bëree koo xamante ni nan naan kii su jàppee ñang wala ñang combat bii mu jël nii baaxul si moom da kii dafa diis si moom wala affaire yooyu xam nga ñun looloo tax instant ñu toog ndax suñ amul moom koo xamante ni nii ku am tur la wala ku am coow wala koo xamante nii mbër dëgg la jàmbaar. mbër dëgg. mbër dëgg maanaam koo xam ni day mel ni ñang koo xamante ne nii xam nga am njaay joxul jóob bi si biir géew bi xam nga su ko waaw su ko ñang xëppee lii mu fayu jàmbaar daal jàmbaar dëgg lu ko ñang def wala xam nga wala avant ñang di ko def dara sax moom mu def ko dara. man waaw maa ngi gis jàmbaar yi. Mm. mais jàmbaar yi bëriwunu mm. waaw bëriwul làmb ji bëri na ay mbër nag mais bëriwul jàmbaar rek mm. non non dafa garaaw de. tuddee nga. yow si jàmbaar nga <laughs> boobu ndax yaa ngi tuddee jàmbaar mooy ko xam ku mel ni Giro Seras rek. comme ku mel ni Giro Seras xam nga mbër bu mel ni Giro yombul. Giro nan la nekkee. waaw gisoo ko ah. Giro mu nekkee ah? ko fooyee. loolu bu dee Abou Ndiassé ah. non gis nga ko ni mu bëree ku dul Abu Ndiassé sax gis nga ko gisoo ji giro gis nga yeneen combat am yu mujj yi Pa Abu Ndiassé xam nga moom tamit dafa tawat ñoo ngi koy ñaanal jàmm rek. xam naa ne bi lim waaw mais ñun combat bi nañ si jeexal tax combat bi nañ si am ay borsa ñu doon bëggoon bëre ba pare bëre bi jox nu terrain bi ñu ngi koy ñaan nag mu jox sa waay terrain woom. mais ci côté euh, entraînement ci bi. nan ngeen di dundee yéen ndax gis na yéen booy ñoom ñoo ëpp ñoo fa ah, par rapport ak tenoor yi. waaw ténor yi moom xam nga. bien nice mais am na ay tenoor nag yuy ñëw waa am na ay booy yuy déclenché mais xam nga rek écrit bi moom noonu rek bokku ndey bokku baay lu waaw ku mag jiitu kii topp si kii topp si noonu la ñuy dundee ko waaw xam nga ndax Zos moo fay sunu grand frère xam nga. waa am na combat di ko ñaanal ndam rek xam nga di ko ñaanal jàmm su weesu. waaw moo moo moo kii. Euh, <laughs> kenn ñëpp ko xam kooku partout dans le monde la. waaw aada la aada faas. Ah, waaw man gaa samay nit lan dégg naa aada sa xarit moo war a aada faas. waaw noo koy kiiwee no xam nga Zoss moom su bëggee moom ñëppay ñàkk ko waa ndax xam nga rek affaire yi nekkul gaayanu rédaction yi sax mais xam nga mooy loolu dañ koy ñaanal rek moom Zoss daan ko loolu la ñaan ndax ñoom ragal a day xañ a wërsëg waaw. du yàq dara du yàq dara si gars yëpp ndax gars ay nante lan loolu relation ngaaka rek lay yàq waaw gars yi ay Baay Faal lan loolu du yàq dara mais te man mbëri bëri samay gaañan lan. ok waaw Papa jàmbaar la sama waay la kooku Papa Papa du ma bëreeg moom. ndax doon bëreeg barki du ma bëreeg moom. billaahi boo nu écrir waaw. man lu ma yéene sama bopp lu ko raw laa ko yéene moom Papa. waaw waaw moom champion la woon ba nii sax champion la jàmbaar la papa gars yi xamuñu ko mais man xam naa ko bu baax a baax a baax waaw bu baax waaw si man bëreem am fulam am faaydaam ak doon jàmbaaram waaw sooy wër jàmbaar nag jàppal kooku noonu si jàmbaar yi ma lay wax moom bokk na si waaw dafa lu mu def loo xam te ne da nga gis yow da nga koo fekke bëri na ah. papa yaakaar naa fekk tournoi yu mu jël du benn du ñaar nii taxaw yi mu doon bëree fëleeg yi mu doon bëree fii ak yi mu doon bëree waaw man maa fekk man ay tournant yoo xamante ni jàmbaar jooju noonu muy papa jël na ko non papa mosuñu bëree waaw non non champion la daal eh, daal derbi la woon. <laughs> yow Papa da derbi. waaw Papa man Papa sama la. Ah? man xam nga derbi la mais derbi. loolu du derbi sax xam nga rek Papa ndaanaan la ko waaw man ak moom nekkul derbi sax billaahi te du musa a nekk derbi. waaw ndax jàmbaar la woon ku ko yab léegi nga ko yab rek. ku ko yab nii léegi nga ko yab rek Papa daan ay champion. waaw. danoo dund lu rafet te booba tey day nice waaw man nit nag du ma la xool ni nga mel tey rek lu ma dund ak yow démb laa lay jàppee ba tey waa ndax ba tax ñu naan tey quoi dama koy ñaanal jàmm xam nga dynamite yi mu nekk xam nga borom bi suturaal ko moom jàmbaar la su nekku jàmbaar ba tey bàyyi na làmb ji xam nga borom bi suturaal ko xam nga teggil ko jafe-jafe yi teggil ko nattu yi quoi lii nattu la rek yooyu day jeex quoi di ko ñaanal jàmm nag bu baax a baax a baax. billaahi wallaahi. non non d'accord ma ko non non loolu mosuma si d'accord ah papa su jëloon sama avance barki alxuraanu karim laa la waatal de booy boo gars yi bàyyi ma sax dama damay dama moo may daal. dama ko dama ko yéene ndam waaw kon man kooku duma ma bëreeg moom waa dama koy ñaanal jàmm rek waaw ñaanal ko xam taw féexak ak taysiir xam nga borom bi may ko lépp loo xamante ni moom mi ngi koy mbébét rek yàlla defal ko ko waa loolu laa koy ñaanal. papa papa ak kan. waaye papa du ma moom waaye billaahi wallaahi papa sama waay la duma ma bëree ak moom comme ni fi bàyyee caatu piol bi moom noonu laa ko fi bàyyee. waaw te su amee làmb gars yi xam ne am na làmb su amee. di bëree kan si waaw. nekkee ay waay rek xamante rek après da ngeen bàyyi noonu waaw dëgg la waaw làmb yaagul nii nii non man du papa wallaahi azim. du ma bëreeg moom te su amee combat damay dem si moom sax su amaatee combat nii damay dem jóge fii dem géejawaay di ko jàppale entraînement gaa yi xam ni man a kii du tay démb la woon waaw. fu ma xam ma wan ko ko. waaw. loolu kase. waaw loolu démb la du tay ko waa ngeen dund loo xam te ne daf la marqué. ba tey gis nañu yaa ngi wax si papa booy jëne yéene ngay waxee ci moom yéen ñaar lan loo xam te ni tey daf la marqué ba tellement nga yéene ko. non lu leer xam nga ndeysaan am na loo xamante ni nekkul dañ koy wax nii rek muy génne ni loolu dañ koy téye waa xam nga rek billaahi mais borom bu baax la gars yi xamuñu ko nag waa làmb ji nii gars yi xamuñu ko quoi mais amaana si kanam gars yi ni doon ko xam. bien. combat bu neex yàqu na Papa Boy Djiné Niang Balla combat boobu laa bëggoon tëgg mais malheureusement garaawul mais Niang euh, noo gisee fi instant bi écurie jàmbaar ndax gis nañu parcelle léegi gars yi dañ ne benn écurie moom moo fi nekk mm-hmm. suñ ne benn écurie moo fi nekk muy écurie la boo xamante ni xamul ñëng baala xamewul giro xamewul ardo mm-hmm. képp koo xamante ni rek am nga combat dañ lay soutenir plus particulièrement nag Modou Lo roi des arènes gisee nañ leen uufee loolu nan nga ko gisee waaw parcelle mooy luy gars di wax rek benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar quoi xam nga waaw man nag maa ngi écurie dóor dóoraat quoi écurie Zoss xam nga mais écurie boobu noonu muy jàmbaar amuñu xaaj ak seen benn mbër waaw man nga nekk man nga nekk ma la sama waa ji Rock Énergie dem na foofu man nga nekk écurie Zoss dem na foofu ba sa combat jot xam nga nga dem seen waa écurie gunge la wala noonu mais waaw ay ay rek ñoo fa nekk waaw. sa relation Talfa. waaw Talfa sama rax la. Hmm. waaw sama rax la sama gaañ la rédaction bu nice lan am. sama waay la sama raxa la sama gaayan la waaw mais xam nga rek ndeysaan mënul ñàkk non dara xewul nag lu koy gaay di waxee rek dara xewul yàlla xam na loolu billaahi am ay jaxasoo fi nekkoon waa xam nga àdduna noonu lay doxee àdduna noonu lay doxee gis nga Seydina Mohamed mooy gën si mbindeef sallallahu alayhi xam nga te dafa amoon ay noon xam nga am ñu doon ñëw si moom di wax xam nga te ñun a a a mënuñu mënuñu a mënuñu baax ba mel ni moom dañuy xool si moom rek xool nu mu doon dundee xam nga ñu koy jéem a dundee mais daa am ñoo xam ne ay yàqkat lan bëgguñu gis nit kuy dem am na ñoo xamante ni yàlla da leen di may da leen di may benn benn benn gis boo xamante ni nii suñ jisee ni kii day dem rek wala kii day dem rek ñoom lañ koy jéem a dañ koy jéem a faxasal jéem ko yàqal xam nga loolu day am si ay nit am na doomu aadama yoo xam ne nan lay xool xam ne kii dina tekki far force wallaahi mais ñooñu dañuy jéem a yàq mais ku xamul fa ku xamul waaw sa yaay ku xamul sa suba waaw waroo soxor xam nga ñun danoo am koo xam ne moo nuy conseillé seul moom rek la ñuy déglu muy dem si yàlla si ndongoloo kooku moo nuy conseillé ñang amul kenn koo xamante ne day taxaw moom naan ko nii ngay def wala nii noonoo kon woon rek. waaw ay rumeur yu ndaw la rek. waaw ñii di dem si taal di wax xam ñii di ñëw si ñang di wax xam rek ndeysaan ba benn action amoon fi nii mais gars yi lépp jeex na instant gars yi ñu ngi si jàmm xam nga di di bëggee Gora Sock bu baax a baax dox na si ay tànku jàmm di bëggee Franc champion la dox na si ay tànku jàmm xam nga Mbaxal noonu dox na si ay tànku jàmm Mbacke fay aada booy bawal champion la. borom baax la dox na si ay tànku jàmm nice waaw ba lépp mooy loolu lépp nice na instant jàmm na waaw non jàmm du fi mos a jugee sax mm. waaw fii mooy jàmm gën waaw fii jàmm gën la tudd mbër bàyyi sa tram bi fii barki sëy fii jàmm gën la fii nga toog yow instant fi nga toog nii rek jàmm gën la tudd mais xam nga comme ni ngay waxee Kawsara wax équipe bi waaw ak jàppoo fii mooy jàmm gën waaw ndax ñun ci jàmm nag la ñuy dox ñun xamuñu lu ñaaw. waaw duñ wax lu ñaaw duñ def lu ñaaw. waaw làmb kom noonu rek. waaw promoteurs yi nag dañuy fay mbër yi. waaw promoteurs yi bëgg noonu lu yomb. yenn ñi ci promoteurs yi. dañuy fay mbër yi ñu bëri. ah loolu daa baax. fay ñu mbëri. fay yi lu ñuy fay lu ñuy fay su ma taqee sama seret bii am ko. barke alxuraan ba tey maa ngi dawal sareet gisoo suuf si xanaa nekk si biir. instant bi nag waaw suñ la fay lu baax. damay takk sama fas dem lijjanti ko. waaw dem indiwaat ko kañ. loolu kasa la ñun daa am ñu yaakaar si ñun. lu garaaw. lu kenn wax. <laughs> lu garaaw. laay doon lu kenn wax. waaw. billaahi wallaahi. <laughs> non ñoom baalu moo dee. wallaahi non lu garaaw laay doon. lu garaaw. lu lu kenn dul wax la. billaahi ah su ma nekk woon mër <laughs> mais sant nañu yàlla quoi. ba nu xam ma yàlla moo ñaalee nga xamante ne ñun dañuy waaw danoo nekk mbër wala ñu nekk mbërantaan nii rek di bërantu. ñoo ngi sant si loolu bu baax a baax mais suñu nekkul woon mbër di nga gis lu garaaw. Euh, bu démb doon tey yan regret la ki nga xamante ne moom mooy Niang Balou loo xamante ne peut-être def na ko te bu doon tey du ko def ak euh, moment yu difficile yoo xamante ne Niang dund na ko ak moment de bon si waaw moment difficile moom xam nga du ñàkk si doomu aadama nit ku nekk dund nga loo xamante ne nii amaana xam nga neex na la wala metti na la waaw. xam nga rek doomu aadama moom dafa lëndëm ta garaaw waaw mais dañuy jël lépp rek santee ko borom bi ko waa no am naa ay loo xamante ni nii weesu noon ko mais nekkul loo xamante ni nii waaw suñu coobare bopp la nattu bu nu borom bi teg la ne ñaan yàlla xam nga yàlla nu yàlla jéggal te mooy loolu loolu ñoo ñëpp baal nañ leen waaw ñun lu tax lu gaay naan ñang ñang ñang ñang ndeysaan ñang benn baay faal la nii rek benn góor yàlla buy dox si town bi nii rek yéene ñëpp jàmm nag waaw ama kenn xaar ma yàlla billaahi wallaahi di ñaanal ñëpp rek mais ay science daal góor gu nekk nag day wees day day moytu tuuma mais ñun tuumaal nañ nu ko waa xam nga am loo xamante ne nii dund noonu ko koo xamante ne nii musuma si wax sax musuma si wax si live si lii nii quoi musuma si wax mais man ñu ma xam xam nañ man lu may wax ko waa ñun tuumaal nañ nu làq nu jant bi ko waa ci loo xamante ni nii du dëgg du yoon xam nga yàlla teg na nu benn natt boo xamante ne nii nekkul ñun loo ko def nekkul ñun ñun ñoo ko def nan nu tuumaal kooku nag tuumaal nu ñëw ni man la ko waa mais jégal noonu ko ba yàlla def xam nga ñu tëj ñu ci ñeenti at barki Seydina Muhammad musul wallaahi azim mosuma toog nag fenn di ko wax waaw mais tey il faut ma wax kooku waa mosuma ko wax nag te su weesoo tey duma si waxaat bien ndax dama bëgg gars yi xam ne ñun dun ay bandi dun ay malfaiteur ay doomu aadama mais nit nit boo xamante ne nii duñ la tuumaal wala nattu du la dal yow yaa bàyyi may yéen a yam ndax nattu nekkul nan lay jàpp rek yóbbu la kaso wala dara natt fu nekk la lay dalee mën na la dal sa palaasu liggéeyukaay mën na la dal feneen ak feneen mais kooku nag dañ koy jéggal te yàlla tax. mais kafra yooyu noonu kenn xamul waaju tuumal la ñu ñu lu bari. sa la laa jugee woon man moo tax su ma entraîné wul rek man ma toog entraîné ma dew ma entraînement dew ma fenn nit ñëw ni ma ñang yaag diw laa bëgg seen combat barki Seydina Muhammad laa la waatal de ma toog ba biir ba juuru làmb ji ànd ak gars yi dem yàlla daf may may ndam soof ma ma ne gis bi ñii ñëpp bokkuñu si man maa ko def pour mën pour mën a libérer booy ñu dem xam nga bi ma wax man leen maa ko def ñu wax noonu man leen maa ko def yaa ko def waaw noonu ah foofu ñu delloowaat ma 100 mètres mu nekk foofu noonu toog xam nga rek yaa ma gën a xam ma xam ne nag lii nag. garaawul ko waa xam nga bàyyi ma nekk foofu entraîné foofu nag bokk na si lu ma def mbër ko waa waaw ndax ba may nekk fii maa ngi doon bërintu mais foofu bokk na si lu ma def mbër xam nga te kooku noonu teg nu natt boobu moom xam na après nu mu demee xam na lii mu doon wax nii dara amu si dara du si dëgg après noonu ñu àtte ma tëj ma ñeenti at si loolu ma libéré booy ñu dem yàlla def man góor yàlla laa bàyyi fa laa ko nice ko maintien ko ba nu koy da man du ma def appel ndax damay xam ne xam nga soo defee appel rek day mel ni gëmoo lu la borom bi teg xam nga rek ma nekk foofu meññee ko di na nag di jàng boxe bu baax a baax xam nga di ñaanal sama grand frère yu ma fa nekkoon dool ñooñu doon ma defal loolu ñooñu doon ma jàngal loolu maa leen di ñaanal jàmm xam nga ñoom ñëpp yàlla tegal na leen nattu bi mais am na ñu fa des nag ko si mel ni sama benn grand Modou Moto maa ngi koy ñaanal yàlla tegal ka nattu bi xam nekkee noonu. Ah, nga foofu ci tuuma. waaw ci tuuma barki Seydina Mohamed. naaj maa ngi koy gis mu may gis mais barki yonent yàlla baal naa ko. baal naa ko toppeewu ma ko dara ba yow mal xiyaam baal naa ko. ñëpp liberal nañ leen waaw ñii mala sama ñoo ngi Maroc di door seen waar ñii ñoo ngi fii di liggéey ñëpp a ngi si jàmm instant nice waaw mhm. ah, mais. ba nga waaw bu ma génnee nag nice ma xam ne man instant nii nii nii am na lu topp sama ginnaaw waaw man ba may génn sax jour mardi laa génn weeru koor amoon ñu ñëw seet si ma visite xam nga noonu ma dem visite bi jeex ma dem toog jekki jékki rek ñu ne ma kaay ñibbi. waaw desoon na ay presque ay six mois souvent desoon na ay six mois jàpp ay trois mois yooyu ñu ne ma kaay ñibbi man leen man man ma ñibbi de dese naa six mois. ñun ma yow ñu ngi lay wër booba tey si kaso bi foo nekkoon man leen man waruma ñibbi noonu jàppama ma ni man damay ñibbi quoi noonu après génn noonu naaj sax si loolu laa ñibbi see. nga prison bi. nekk nekk foofu dafa métti ak li ngay dund yooyu noonu ba jàngat après nga ci def. waaw jàngat bu si def mooy maanaam mooy lu may wax gars yi rek yàlla dalay teg natu ngir war la yow yaay kan quoi. mais du la teg nattu pour nga jàng si affaire a bandi def si nanga sudul noonu wala génn wan ni yow xam nga dem nga foo xamante ni sa benn morom mosu fa dem di jéem a teg affaire bandi wala yooyu noonu non non danoo ñëw toog xoolaat suñu bopp bu baax a baax gaa indi nag ñang ma la sa maaj essant nii mooy loolu gis na nu mu demee mbapat nga jóge woon ñëw nattu bi daal la nii moom dangay ngay na ko waa pour nekk mbër waaw noonu nag ci loolu la ñëwee booba tey nag yàlla mi ngi nuy suturaal quoi moo tax man la man su ma toogee rek wala am combat xëy dem yàlla daf mooy suturaal damay daan ko waa barke alxuraan mais damay ñaanal ñëpp jaamu di wax nag xam nga muy maanaam bépp police bàyyi gars yi balaa ñooy defeere doomu aadama yi dañuy xool bu baax a baax xool lu ñuy wax ndax dëgg la am du dëgg ndax am na ñu fa nekk ñoo xamante ne nii wallaahi defuñu dara man loolu leer na ma nu dara dara billaahi wallaahi am na ñun saxatoo ñoo xamante ne nii xam nga seen mbokk pour ñu jis leen du yomb quoi waaw jis nañ ñoo xamante ne nii nag nañ leen di tuumaal yenn tuumaal yu métti yoo xamante ne xam nga pour ñu ñëw instant nii du yomb de ñun loolu teg nañ si suñu bët gis nañ ko waaw mais dañuy ñaan yàlla rek xam nga yàlla na fi jaamu yaaga di ñaanal ñëpp jaamu xam nga rek mooy loolu waaw. amaan mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel FM ñu dalaloon ki nga xamante ne moom mooy Niang Ballo rien à dire ah, di ko ñaanal yàlla jàmm ah. kon li mu wax rek innocent yi bari nañ fa na ci gars yi bàyyi xel ah. di jox gars yi dig daje prochainement incha allah. mbokki Sénégal ndaanaan bi yegg si na kookal la ñu ne la numéro promoteur bu mag bi ki nga xamante ne mbokk yi bu yegsee amateur kontaan xam ngeen lu mu defati dafa jël ñaari xale yi nga xamante ne yi ñoo toll la ñu ne booy jóob kookal la ñu ne jeex jaamu na lu rëy képp kuy amateur mbokk a xarañ ci làmb la la jël delloo ko njukkal kan ñu ne Pape Malick Ndour le ministre de la jeunesse de l'entrepreneuriat et de l'emploi PCD de gin gi neew mbokk kooku la ñu sargalee bis jëli bekaay boole ko ak boy sil loolu mooy combat spécial ba boobu mi ngi ko duppee ki le ministre de la jeunesse de l'emploi et de l'entrepreneuriat mbokk yi xam ngeen lu neex ci bis bi laay Bruce Lee ak ñagasteur dañ ko sargalee ki nga xamante ne nii bu lamb yegsee fii da am wàllu bu rëy la ñu ne Sa xaritu lamb ji Sa Touba mi nga xamante ni yépp kuy mbër sooy bëri di tudd Sa Touba woo ko mu jàppaleel ci bis waaye mbokk yi fàllu yamul foofu daajal combat Zoss 2 ko xew-xewu lamb drapeau bi du guléet bi mooy troisième édition bi mbokk yi moom ak petit l'enfant ñoo fay daje jinne bu ndaw moom ak juldal dëra mbokk yi naturel dina fa ak nees de Modou Yacine teel a ñàkk baay dina fa ak ki nga xamante ne mooy caati li ngeer Bombardier 2 dina fa laale ak doomu mi na mbokk yi rek baa mooy tijji bis ba mook internet tey bisu le 20 Fallou Ndiaye daal yegsee képp kuy amateur sa xol sedd bisu le 20 kuy amateur boo yéexee di nga tardé ndax xoolal en direct lay doon Kewel TV ak yeneen plateforme yi nga xamante ne ñoom la Fall di liggéeyal sama gaañi le 20 Fallou moo koy yëngal